kon soxna Dior am sa gàcce ngaalaama laa lingeer mbooloo mi teew ànd ak soxna Awa Kayre moom it jóge Kër Ñang ak soxna Khady Gueye ñooñu ñëpp ñu ngi ci gannaaw soxna Dior am sa mu liggéey liggéey bu mucc ayib Serigne Mboup bu ñëpp defoon ni soxna Dior am sa nga nekk cinquième président de la République du Sénégal Touba liggéey na fi liggéey bu mucc ayib ànd koog président Mbaye Ndiaye ànd koog Maguette Bakhoum ànd koog ñi nga xam ne ñoom la ko war a àndal yëpp kon Serigne euh, soxna Dior am sa gàcce ngaalaama kon sëriñ xam lay xamal ne soxna Yoro am sa liggéey na waaye nekkul nag li nekk sa gannaaw tool waaye dafa liggéey ci terrain bi ñoo lay ñaanal li ci ñoom yàlla na ko yàlla doon nga nekk cinquième président de la République du Sénégal jërëjëf. déglu leen ma tuuti rek ma wax leen lu leen amal njariñ ci coono yi xam ngeen ne ñun lii du suñu liggéey ñun mënuñu politique bu dee politique gu daje ak nit ñi yenn loo leen. ci ci mbedd mi wax leen ñu dem sa te ëllëg boo toogee du ñu la gisati man dëgg la Kaolack laa dëkk laa juddoo waaye sama papa Baara ak Mariamu Jeng ñoom ñaar ñëpp ci Kayal gi juddoo kon man li ma meññi Bawol léegi nag ñun xam nañ ne li gën a métti ci Sénégal te moom lañ teg ñëpp mooy ndaw ñi ak jigéen ñi bala maa def ci ndaw ñi damay wax jigéen ñi lan lañ leen di defal xam nga jigéen moo yor société yàlla ba muy dénk nit ne ko maa ngi lay dénk say nga rafetal ko mu ne ko wa wassaynaa al insaana bi waalidayhi husnan daf ne ko hamalatu ummuhu kurhan wa wadaatu kurhan mooy say waajur dénk naa la nga rafetal waaye yaay laa la gën a dénk ndax moo gën a sonn ci yéen te ñëpp xam nañ ne jigéen ñi sonn nañ ci jàppale góor ñi ci dépense sonn nañ ci yor seen dépense kër te liggéey bi ñuy liggéey liggéey yu métti la ndax buñ ko dajalee ak góor góor ña nangatu leen ci waaye man sama programme damay fexe ba jigéen fu mu soxlaa financement da koy am ndax jigéen day fay bor man dëgg nekk moo di diggee bu ngeen demee ngeen laaj waa Kaolack ba ma yoree chambre de commerce am benn at moom moo ñu doon jox cent millions mais année bi bi ma yoree mairie cinq cent millions laa moo tax nga xam ne moo tax nga xam ne bi ma bëggee Kaolack jigéen ñi ñoo taxaw pour ma jot Kaolack kon nag fi ne dama leen di assurer disponibilité cent pour cent crédit avec intérêt bu ndaw deux wala trois pour cent taxawu askan wi mooy seen ñaareel ba mooy boo lebalee nit da nga koy wutal ay machine ba mën a transformé bu baax ay produit am defal ko emballage yu rafet fexe ko ba ci supermarché yi ñu ko faa jaay mu disponible ñu wàññi importation bi fexe ba usine de production yi bari trop nekk ci dëkk bi ndaw ñi nag ndaw ñi li may def ci ñoom ñaar la dëgg la jàppale leen ngeen am financement dëgg la waaye léeg-léeg financement mën na leen a sonal fexe leen ba ngeen am liggéey boo xam ne ngeen am salaire yu garanti fexe ba ndaw lu mu tuuti tuuti niveau de salaire am dana mat cent cinquante mille même amul même bu amul formation. amee même bu amul qualification mais ndaw bu amee doole nga defal ko formation jàngal ko mën naa am niveau de salaire bu ëpp loolu ndax tubaab yi bu ngeen demee ba dugg fa même ci gaal yi ngeen dugg wala fu ngeen mën a dugg kenn leen laajte seen diplôme dañ lay jàngal ba nga mën liggéey bi nga dem ci fabrique bi liggéey loolu seen mbokk yi sunu mbokk yi dem ci bitim réew bu doon buñ demee ñu ne leen seen diplôme. kon bu boobaa duñ liggéey mais benn ndaw musu leen ko dégg mu ne dem naa Italie wala dem naa Espagne dellu si naa parce que aw ma diplôme ndax diplôme bi am bi ëpp doole ci doomu aadama ci ñun yàlla defal nañ ko luñ jàng weer gën koo man ñi nga xam ne nii ñoo ko jàng lu ma tukkee at loolu nag boobu ñu ma ko def dama def sama programme ne Sénégal dañ koy dañ koy xaajaat six pôles de développement yoo xam ne ni dañuy fexe ba ay usines développé transport bi développé ba ñu fexe ba nga xam na nii ay car yu bees tax mooy am ñu wàññi moto jakarta yi fexe ba wutal leen ko remplace leen ko oto lu ma leen dig rek lu leen dig rek xamal leen ne sama man-man mu ndaw def naa ko fi yéen ñëpp xam ngeen ne joxe naa fi ay Mbàkke Tuuba ay oto ñu di ko dawal fii muy transporter ay nit ñu defar tamit mbay mi ba ngeen mën a bay bu baax kon dama yaakaar ndaw ñi bu leen defalee ay usine ngeen mën ci liggéey développé transport bi defalee ba nga xam ne nii da am ay mbay ngeen mën a mbay bu baax jigéen ñi transporté ko léegi emploi jeex Sénégal sama programme bi ma wax mooy créer un million d'emploi par at Sénégal mën na absorber lu ëpp loolu ndax Sénégal bu arrêté importation bi def installé ak usine de consommation usine de production ci pôle régional mooy Touba Mbacké ak région du Bawol def ko Sine Saloum def ko Sénégal oriental Tamba def ko Matam def ko Ziguinchor def ko li nekk Dakar moom am na ba noppi ñu consolider ko Sénégal day jëm ci kanam te Sénégal bu jëmee ci kanam ñëpp am jàmm ñëpp am sutura maa ngi leen di gërëm leen sant di leen gën a dégg soxna Dior Mbacke ci taxawaayam bi nga xam na ko bu ba njëkk jigéen ñi lay sonal jërë ngeen